xam nga ci wàllu gouvernance amul kuy toog ci boppum réew même dictateurs yi ñu gënoon a sib am na lu positif lu ñu def euh, ku ñëw nag toog régime yi fi mu sa ñëw yépp am na lu ñu def tuuti ci électricité kon bu ñu suñu buggee di avancer bu ñu suffire de peu naan pourtant y a des efforts ya a un état doit faire ko ko nangul non un état doit des efforts mm-hmm. parce que suñ la falee yow dañ laa fal ba pare jox la des mooy pour nga liggéey dama ne toujours réew moo xam ne ñi ngi féliciter président parce que def na ceci ou cela réew moom du gaaw avancé parce que su defee yow dañu la fal jox la un budget budget bi tey trois mille cinq cent milliards la jox la administration jox la diplomatie jox la tous ce dont tu as jox la sax avion pour nga bañ a tardé mais da ngaa war a def donc ñun li ñu intéressé mooy li ñu def ak li ñu waroon def fi ñu yem ak fi ñu waroon a toll Mhm. tant que new amuñu rigueur boobu ci appréciation bi c'est comme su ñu naan ñi ngi féliciter président de la république parce que euh, tal tali bi ñëw na ba si ñun mais tali bi li ko andi si sa kër yow sa dërëm la te waroon na ñëw bu yàgg donc nous on n'est pas là pour euh, naan euh, tout est négatif ou tout positif mais li ñu gëm ñun mooy étape bi waroon nañ ko dépasser bu yàgg yàgg yàgg su doon dëgg dëgg dëgg am nañ une politique énergétique au Sénégal. alors xam nga ñoom dañu joxe explication d'ailleurs tey euh, yenn. solution d'urgence yu ñu jël pour xuy xamaj bi bañ a dellu si bokk na ci euh, bateau bateau bi ñu loué nga xam ne ci estimation ñi ne nañ cent milliards ñi naan cent cinquante milliards par année la war a coûter Sénégal. pour cinq ans pour cinq parce que loolu wane na rek ni ni capacité bi ñu ne woon am nañ ko amuñu ko parce que su fi bateau boobu nekkul woon tey euh, déjà pour xamaj bi jeexul fépp balaa nga koy xam léeg-léeg nga dugg ci région waaye wàññeeku na bu baax a baax a baax. li ñu jël tey comme argument pour justifier la hausse loolu nekkoon na argument bu yàgg parce que ñëpp xam nañ ni euh, sept ans yi passé rawatina six ans yi passé li nga xam ne mooy le principal facteur du coût de l'énergie au Sénégal mooy pétrole bi li muy jar ci àdduna mais ñëpp xam nañ ni pétrole li mu doon jar diggante 2008 ak 2011 pratiquement wàccoon na ba le tiers ci diggante boobu et pourtant c'est seulement en bi ñuy préparer élection la ñu doog a annoncé ni dañuy baissé soit ñu nekk ci benn logique boo xam ne dañ naan logique gu hausse ak baisse systématique la mooy bu mbir li principal facteur de production bu yokkoo dañuy yokk bu wàññee dañuy wàññee mais de manière transparente soit ñu ne dañuy nekk ci benn logique péréquation ak fexe ba am benn prix boo xam ne dañ koy téye bu bu bu bu yemamaay pour citoyen bi mais bu ñu nekkee période baisse drastique yooyu les ñuy am. ñu dugal ko dans un système de précaution ba su baril bu yokkuwaat. Hmm. ñu mun a au moins sur une période. parce que su baril bu yokkoo sur cinq mois six mois ñu ne loolu la amoon ci li nekk pour la précaution mais si c'est sur un an deux ans foo jaar ñu yokkaat mais logique yooyu yëpp kenn xamul Sénégal dañuy xëy rek ne la barki démb baril bu yokku na dañuy yokk mais baril bi mun na wàññeeku cinq ans du ñu wàññi. donc ñoom politique énergétique ci boppam en plus de de la transition bi ñu waroon entamer bu yàgg te defuñu ko. mais ni ñuy gérer ci produits pétroliers yi parce que ba léegi la structure du prix du pétrole ba muy su ñuy wax énergie souvent dañuy fàtte sax wax li jëm rek ci électricité mais ba ci li ñuy consommer suñu oto yi nangam nangam te état bi bëggul wàcc ci rôle boo ci génne woon liy taxes yi rek parce qu'on vit de ça tey tu aurais peut-être la moitié du prix wala yu demee noonu donc yooyu yëpp c'est des ensembles yoo xam ne mun nañ ko analyser ne naam comme baril ñun moom la ñu dépendre baril bi su yokkoo war nañoo mun a analyser mais baril bi jamono yi mu wàññeeku pendant longtemps lan lañ defoon ak li ñu waroon def pour restructurer Senelec depuis longtemps parce que foofu la management di ñëw li ñu waroon def pour restructurer bu yàgg ak li ñu waroon def pour le passage au gaz mhm. ak renforcer notre notre capacité ci les énergies renouvelables pourquoi on est autant en retard si loolu mhm. boo jëlee ay pays yu mel ni Maroc tey nga xam ne l'énergie solaire rek pratiquement alimenté le Maroc yooyu mooy les vraies problématiques qu'il faut poser c'est des problèmes de gestion qui renvoient à la compétence et quand un état faillit dafa baaxul à chaque fois suñu fay fayiree ñu ne nañ ko répercuter parce que noonu la def tey su ñuy wax sénégal yi nañu seetlu nag parce que pétrole kii euh, courant dafa gën a fës parce que facture bi da lay fekk si am na yoo xam ne bis bu ne mu yokk mais ay ose indolore la doo ko sentir parce que suñ koy yokk duñ ko yëgal nit ñi c'est comme toujours en matière d'impôt yow suñu la andilee tey sa sa avertissement impôt ne la sa kër gi war na fay nangam nga yooxu dëkk bi yëpp mais am na xeetu impôt yoo xam ne bis bu ne nga fay ko te doo ko yëg parce que bi la dangay dugg ci boutique bi jënd wala nga jënd sa carte crédit mi ngi ci biir te loolu liñ ciy fay moo ëpp li ñu la andil ci avertissement donc nguur day utiliser yooyu parce que sénégalais yi mun a xam loolu wala ñu comprendre ko dafa néew di utiliser loolu di teg coono askan bi nguur gu am yërmande nag doo doxalee noonu